Euh, de spécialistes, ay euh, citoyens ils représenté représentés entre autres mais bii ce qu'on dit c'est yow citoyen bi yow mi nga xamee ne justice ci yow la war a tegu yow mi nga xamee ni mbirum sociale ci yow lay tegu yow mi nga xamee ni mbirum nangam ak nangam pàcc boo gis ci yow lay tegu wala ci yow la war a dellu si yow la ñuy laaj yow sa xalaat ci mbir mi directement ubbil la plateforme pour ne la yow yaay wax directement parce que bu doon mënoon na ne président day toog ak sénégalais bu ne laaj ko ku nekk xalaatam mais comme mënul ne ne nañu jël benn plateforme boo xam ne bu ñu ci laajee citoyen bi citoyen bu nekk dina ci mën a joxe xalaatam wax ci lu mu ci xalaat ñu regroupé ne ni lii yëpp ñoo yem benn benn kàddu ñii ñoo yem benn kàddu et cetera topp ko ba mu ba muy jeex euh, buñ ci noppee. ñi wa war a dëgëral ko ci réforme bu mu mën a doon mooy ñi nga xamee ni ñoom ñoo ko yore acteur de la justice yi dina am luñ ci loo xame ni ñoom ñoo koy yore directement assemblée nationale dina am loo xamee ni moom lañ koy dénk ne ko par exemple faw nga soppi loi nangam wala faw nga soppi doxalin nangam am na loo xamee ni nii ñu ngi koy coow depuis belle lurette le président de la République moo ci jël décision wu boppam mooy conseil supérieur de la magistrature ñu ne ah même bu dee président da koy jiite mais président du ci am daanaka dara euh, turu jiite bi rek lay doon waaye magistrat yi ñoom seen biir ñoom ñoo koy def te am na leneen loo xamee ni faw ñuy jubbanti ko également par exemple le président Macky Sall bi mu fiy génn dafa jël ay décret nommé yenn ci ay pouvoir yenn ci ay euh, euh, magistrat jël fii dugal fii génn fii ak yooyu président Bassirou Diomaye fay ñëw dindi yooyu le décret muy kenn ki muy keneen ki muy président Macky Sall comme président Bassirou Diomaye man jàpp naa ni rôle boobu ñi nga xam ni ñoom ñooy magistrat yi ñoom seen biir ñoo war na ni a ah, man euh, ñu def kuréel goo xamee ni Euh, parce que am na union des magistrats du Sénégal donte euh, mën jàppee xeetu syndicat comme ni mu amee greffier yeeg yooyu mais ñoom seen biir magistrat ñu ne ñun xool nañu saytu nañu ci suñu biir mu am benn xeetu euh, tribunal des pairs entre magistrats boo xamee ni donte waxuma sax waxu ay igage ak yooyu nga xamee ñoom ñooy daanaka atte ñii di yëngu ci wàllu yoon mais ñun magistrat ñu ñoo tànn ne ni wax dëgg fa neex yàlla entre ñun Euh, cour pour jiite cour suprême Cheikh Diop la ñu gën a mën a wóolu parce que moo ñu ëpp expérience wala moo ñu ëpp nangam ak nangam après peut-être président mën na ko entériner en tant que président la République euh, en tant que peut-être chef euh, ki jiite con euh, conseil supérieur de la magistrature donc bari na ay mbir yoo xamee ni pour ñu saytu ko pour ñu defar ko comme mu ngi jóge ci askan wi ñu war ko jooyanti yónnee ko président ak ay staff bi mu àndal ñoom ñoo mën a xool nag pouvoir yi ñuy am yépp pour mën a seet nu ñuy def ba indépendance justice boobu non seulement ñu mën ko euh, dëggal mais sur tous les plans euh, kii nga xamee ni moom mooy justiciable bi sentir ni man sama dossier bu demee ci yoon yoonu président du ci ne yoonu premier ministre du ci ne yoonu homme politique sàngam du ci nekk c'est pas parce que homme politique la wala opposant la wala lu ma mën a doon mais dañ ma tegal ci yoon ba nga xamee ni yoon lu mu décider rek ñu nangoo ko noonu d'accord ba Baye Ablaye point actu dafa bind si ñaar ñoo xam ne xam ràññe nañu leen